moo bobu tahkim ijbari la waaw kooku dafay statuer conformément à la loi parce que du lu ñuy maslaa lii la wala li rek et puis c'est tout bu ñettel bi ci walu tahkim moy juger selon les apparences Pourtant, il faut faire très attention. Juger selon les apparences. kooku taxkim ilzami parce que impératif là. Ta modi di bi mu waré génne dem xaré. Ta am ñu mu ko wax ci jullit yi ñu gàntal wut lay ni ko dafa am yu ñoo toppatoo ci wàllu njaboot ga te bu tardé am lu mu jur moo tax du ñu mën dem te yàlla mi gis lépp xam na ni lu ñuy toppatoo newu fa yonent bi demee ca xare ba ba dellu si nag yàlla jox na ko taxkiim ilzaami وإن رجعت إلى المدينة فاستأذنوك للخروج فقل, فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فإنكم أه، رضيتم بالقعود أول مرة يلا نيكو فوفو جيخنا امنا نيغا خامني دوتول جاد غي جوغا دي دي دم نيي اندك يو كوم واخ نالن بن غا نيو غانتال تا مان نيو جوخي كوم غانت دو غانت

Ayebi, Ayebi, 5 heures du matin, après le 16 février. ak tur ya mu àndal billahi du ah yónnee naa ko kilifa gi nag ni ko bi jot naa ko mu liir yépp wax ma ca la mu ma ca wax ma wax ko ca la ma ko ca wax ñu garde moo tax nag xaqiqa ku yëgu bañ ci di tergiverser baaxul waaw waaw moo tax ba ci cadre diw sax nañ ko may diw mu sëy ak moom dugg na ci taxkim ilzami bi am na ñu koy soow waaw waaw ñu amuñu droit pour ni diw na sëy ak diw nañu bàyyi nangam nangam diggante zayd ibnu xaarisa ak zaynab bint jahsh waaye bi loolu ko taxoon a indi bu ñu waxee zaynab muy indi ay affaire complexe te xanaa du Zeydi mii Zeydi man xanaa nag war naa sëy ku ko ëpp nag aaya ba ñëw wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim waaw na loo xam ne ku ca bokk nag war a may te cay sa kilifa mu décidel la waaw loo rek la yàlla wax aye ah, ñu jox ko yonent bi yonent bi wax ko Zeynab waaye naka la bi ñëw rek momi it tegu ca baat waaw ah, kon nag tënku na jël li yàlla ak yonent bi bëgg waaw ah. loolu mooy tax xàmmee di baax mais gis nga taxkim boobu kooku dafay nekk ay concours de circonstance bokkul ak alxasana xasaana mooy immunité mais immunité ni ñu ko gisee ci wàllu àdduna ak ni ko alquran di doxale du benn parce que alquran nangul immunité ñu personnifier ko mën a delloo ko ci nit ki parce que diw la wala diw c'est un parlementaire wala nangam déedéet immunité présidentielle immunité diplomatique immunité parlementaire bon mu ci mën doon mais alquran immunité d'où des dellu ci jëmm ji du problème au personnage ci mais les mu problème mu qualité la moo tax nag bu ko jikko lalee ont dootul def taxdiit ci zaman ak ci kenn du ni diw barab bi mu nek motax ñu jox ko immunité bi barab bi du la jox immunité te jikko moo lay jox immunité bi foo dem mu valable amul it temps buñ koy tënk ba abadan feeg jikko baa fi immunité baa ngi fi bokkul ak li xew ci jamono bo duggé ci assemblée di député rek ñu né immunité parlementaire jeex na daal di koy institutionnaliser te fekk na bu dee alquran du demee noonu moo taxoon gis nga yonent bi façon yi nga gis yëpp ci alquran immunité yi mu ko defal yëpp ba ci bi sayid cheikh doon nettali ci gàmmo gi yaa ayuha nabi inna ahlalna laka azwajaka allati atayta wujurahunna waaw ba yegg ci wa mraatan muminatan in wahabat nafsaha linnabi ca foofa la terminer jigéenu julit bu bonul yakul xëy may bopam yonenti bi te fek yonenti bi bañul valable na mu ko way xaalisatan laka min dunil muminin koku nak yow ya ko mom mi ci dess momuñu ko kon koku immunité yonenti bi la ba ci dess wala tankihu azwajahu min ba'di abada yonenti bi bàyyi soxna bu benn jullit jël soxna ba

xoppi ma xool ko mu ni ko li ngay nekk nekk sama doom ëllëg mënalu ma la dara yàlla rek ay décidé ci yow man doonuma ca dara kon boyeba nga sonnal sa bopp li nga war a sonn pour wax la ñu jox yonent bi immunité du tax fu Fatima dem rek am immunité comme ni ñuy demee fii dafa fii erreur la un président ñu ne amné immunité bu ko defee jabaram itam ñu fait ko lu neex def a ay jabaram ak domam yépp ben bu tout alcorane du ko bi ci dess moy li ñu al isma isma moy infaillibilité léeg-léeg ne nul n'est infaillible mais fekk na ça dépend baatu masiix lu ko indi loolu infaillibilité moo ko indi ne Issa mooy turam mais isma bi moo tax ñu koy wax almasix bu amul bakar. et pourtant yeneen ti bekk sincérité am mu ni mbaaxu yàlla la rek xoolal loolu nee na mbaaxu yàlla la rek d'accord mu ni amul bàkkaar mu ni mais ñun yonent yi ku ci masul def bàkkaar amul kenn rek a ci génn moom yonent bi de ak sincérité kenn rek a ci génn ñu ni ko kan mu ni Yaxya moom masul tooñ boroomam mais ku ci dul Yaxyaay ak yonent boo doon tooñ nga sa borom bees pour wax na

daf leen ci dougal bu ci def des nag mooy alqadasa alqadasa yàllaa ko mom mais mom itam dina ci def délégation de pouvoir waxuma la pour nit mais pour barab moy sainteté yalla mom sainteté moo mu tudd al malik al quddus mais dina ci jox barab seddu ko ci quddusiyaam فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس بس تامبورير قدوسي بي الله جوخ نيت سي تامبورير بوسام ريك موي وي فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس موي جامونو بي موي واخ موسى مي بو موسى ديبي ريك جيخني même quddusiya bi moom la sédde adam et c'est temporaire wa ida fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi fa qaau lahu saajidin te période boobu quddusiya ba def na ci délégation de pouvoir jox ko aadam moo tax malaaka yi sañ ko sujootal c'est temporaire mais ba mu fajj joge jeex na ken sañatu la sujjóotal adam yu mel nonu diko xamé dafa bax parce que boko dul xamé da ngay jaxase yu bokkul digenté tahkim digenté hasan digenté isma digenté qadasa motax ci digenté kilifa yi bo dul xamé yoyu di nga djoum ko nit ñi dañuy soow rek soow rek nangam nangam nangam fekk lu ne xamuñu nuñ koy firee waaw ndax dañu ñëw Tiwaawoon ci dëju soxna Asi ñu jël soxna Asi yóbbu ko ci morgue bi di ko defar tàkkusaan jot ñu kàbbar ci jàkka ji pour julli tàkkusaan ñun it fi ñu no ñu kàbbaru sunu kàbbaru bopp pour julli sunu tàkkusaanu bopp mag ñi ku ne di soow xale yu yaree ci kuy ñu ngi julli ci jàkk ji ñuy ber seen julli mais pour ñun sunu julli moo valable kooku nag du jara seet fu du problème mu âge du problème mu aada bu dox ci pénc kooku sunu immunité bopp la moo tax ku yóbbu di teey waaw ku yóbbu di teey di teey waaw ko defee rek yooyu yëpp di ko xàmmee dafay baax ndax léeg-léeg nga gis njaboot yi sax ku ci nekk ci ruq di la ci xaw a kiyaale waaw mais di teey nag di seetlu yëf yi xam lu ne naan la dafay baax Ah. kon danañu ko daldi tek ci rek القدسيه الازليه والابديه لله عز وجل santete bu dul jeex du fi jóg tambali ba ñepp fekk ko fi ñepp dem mu des fi mu continuer ko du si yabob kenn rek ko moom moy sunu borom lo loo gëm-gëm nag nit ak loko fonk-fonk na nga xamni yalla ko bind mo la bind moo tax na avertir ñepp li muy fonk fonk isa defal ko isma et tout bu ñu bëggee dépasser cadre ba dugg ci bosam rek daal dinay freiné ya isa a anta qulta linnaasi ittaxiduni wa ummiya ilahayni min dunillah ba mu déggee ñu commencé naan isa yàlla la mariama yàlla mu ne ah du ma wax ak jaamur yi isa mi ma waxaloon laay waxalaat est ce que yaa wax loolu ni waxuma ko mu ne ko kon nag baax na man yow la amal affaire bu léré sama digënté yori léré sé mon affaire dana ko réglé waaw yonent bi ñëw ak mayam ak ismaam ak lu ne mu ni ko é waaw mu ni ko waxal nit ñi ne qul la adri ma yufalu bi wala bikum waxal nit ñi ni man la yàlla yóddi sedd na ma defal na ma lu ne waaye ëllëg xaw ma sax fu yàlla jëm ak man waxuma la ak yéen waaw yàlla ko ko wax ni ko wax ko nit ñi ni ko yow sax xamuloo fu ma jëm ak yow waxuma la ak nit ñi mu wax ko nag daal di teey bi ci des mun ko qul law shaa allahu ma talawtuhu alaykum wala adraakum bi waxal nit ñi ni leen jàng gi ngay jàng aaya yi muy neex man rek la saf mu nekkee noonu bu ma neexoon léegi fi mu ne dootoo xam dara dara wax ko nit ñi mu ne ñu ne mu ne ah yëf yi am na borom nag am na ku ma ku ma xamal rek waaw bu ko dindi woon it ma yem ak yéen waaw nag walaw shi'na la nadhabanna billadi awhayna ilayk waaw bu ma mel ni du yow dara doo ko xamati mu ne ko maa ko xam mu ne ko kon nag yemal ci gudd ñorof la ci mbaf ngu mu ne ko yem naa ci kudd mu ne ko kon nag baax na waaw pour wax la tabaarakallahu gis nga mag ñi xam gi ñu xam xaqiqa yàlla moo tax ñu dëgër bopp am na koo xam ni fit taxul mu dëgër bopp xam xaqiqa yàlla moo tax mu dëgër bopp ndax xam fi yàllay jaar ak jaam yi moo tax nag xikma yooyu d'abord bala ngay wax waxu njiit ak waxu kilifa foog de nga décortiquer ko yooyu ba xam mooy lan xam yooyu yëpp bu ko defee bu ñuy dem Tamba lañ leen di jox nag catégorie yi nga xam ni kenn ku ne xam ci ban nga moom baatu atiu llaha ak catégorie am wa atiu rasul ak catégorie am wa ulil amri minkum ak catégorie moo lay tax nga gis ni ulil amri du wax wa atiu atiu llaha tudd na atiu ji wa atiu rasul tudd na atiu ji mais bële maatuuf la ko def ci atiu rasul tamay wa ulil amri minkum catégorie yooyu nag ak ku ci neen lan ban nga bokk foofu ak loo sañ ak loo sañoon ak nooy diriger comme dañu fas yéene waxtaane bu ñu demee Tamba pour président yeeg présidente presidente ah mo mel ni nag ngeen baal ma bët bi dafa xaw a wànnent <laughs> travail yu lamp bee ko def lay ndeysaan sant yàlla rek yalla yàlla motali yalla yàlla taxaw wa tabarakallahu kilifa yu baax yi fi ñëw li ñu ko wax ku ne jàng salatu ala nabi mi def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu duggal ci suñu yene suñu aajo ku teew ku teew ñëpp ñu ñaanal leen ci barke yonent bi yalla yàlla nangu ñaan yu bax yi te yàlla rammu ñëpp te yàlla tete ñëpp te yàlla ar ñëpp te wattu ñëpp ci mbaaxam te